asalaamaaleykum gaa maa ngi leen nuyu waat di leen dalal ak jàmm ci Sen Sport 221 The Best Channel Aliou Cissé gannaaw match yi nga xamante ni Sénégal mu ngi koy waajal te ñu jàpp ne fileeg ñaari fan wala ñetti fan ci kanam dinañu xam joueurs yi nga xamante ni convoqué na leen ci jongante yooyu la ci àjjuma ji ci la koy dal di fësal kayiti xibaar yi wéral na ne dina am ay retours yi nga xamante ni ñu ngi koy séentu ci liste boobule ku ci mel ni kii di Salif Sané Pape wala boog Saliou Ciss kayiti jàpp na ne ñi nga xamante ni ñooy ñeenti joueurs yépp dinañu leen gis ci liste boobule léegi xibaar bi di record nag moo ko dal di xamle mu ngi xam ne ni ki nga xamante ni mooy Salif Sané mi nga xamante ni sax moom gis nañu ne saison ren bi daanaka saison bu compliqué la ci moom ak équipe am bi nga xamante ni mooy Schalke 04 gannaaw bi nga yu baree bari yi nga xamante ne daloon na ko ci ndax depuis novembre jéewul ak équipe nationale bu Sénégal li ko warloon di ay blessures yi nga xamante ne doon na ko gàllankoor bi mu dellusee nag taxul koo yàggu loolu ñu gis ne booba ak léegi sax jéegul match yu bari li waral na ba dellu sem daal jaaxal nañu baree bari kayiti xibaar bi na xam na ne ne ki nga xamante ne mooy Aliou dina convoqué ki nga xamante ne mooy Salif Sané kenn ki ci topp nag mooy ki nga xamante ne mooy Lamine Gassama moom Lamine Gassama nag moom jàpp nañu ne sax moom itam saison am xawoon na tane wala xaw na compliqué waaye nag joué na ay match gannaaw bi nga xamante ni jamono yi ñuy waxee ak yéen jotaan na place am ak clubam boobu nga xamante ne mooy Guas Tapé ndax kat moom seetlu nañu ne ci journée yu njëkk yépp moom dafa ñàkkoon place am moom ki nga xamante ne mooy Lamine Gassama ndax saison bi yëpp 18 match la joué ak clubam boobu nga xamante ne mooy Göztepe waaye nag jàpp nañu ne gannaaw gi moom ki nga xamante ne mooy euh, ci weer yi ñu weesu moom Lamine Gassama jotaat na place am ba 7 match yi nga xamante ne weesu nañu ko muy juróom-ñaari semaine yi ñu weesu yëpp Lamine Gassama daal joué ak club boobu nga xamante ne mooy Göztepe jamono yi nag moom ki nga xamante ne mooy euh, Lamine Gassama 15 titularisation daal dina koy am am lu toll ci 2 passes décisives bi saison bi tàmbali ak léegi moom nag jàpp nañu ne ki nga xamante ne mooy Alioune Sèye dina ko daal di convoqué keneen ki nga xamante ne mooy àndandooram bii di Youssouf Sabaly moom itam ñëwul woon ndax bu ñu seetloo ñaari match yi nga xamante ne Sénégal weesu na ko amoon gaañu gaañu ki nga xamante ne mooy Youssouf Sabaly moom itam amoon blessure waaye Lamine Gassama moom sax bokkul woon ci ñi nga xamante ne daal dinañu leen convoqué kon nag li waraloon ba ki nga xamante ne mooy Aliou Cissé amul woon benn latéral yooyu la jamono yi nag kii ak Lamine Gassama yépp dinañu dellu ci wat Youssouf sabali mom nek joueur bi nga xamanteni saison bu reuy la def ak ñi nga xamanteni ne di Bordeaux mom nak ak dellu ci mom xañ na ñu bari dinañu ko rafetlu waye dal ki nga xamanteni moy Lamine Gassama xañ na mooy am sik sak ci ñen ñi gënaaw bi nga xamee xawon na am problème mu de jeu keneen ki nga xamanteni mom tam itam kayiti xibaar yi wéral na dina dellu ci ci liste boobule moy ki nga xamanteni moy salif Saliou mom latéral gauche la mom tam nek joueur bi nga xamanteni ni jamono yi mën nañoo wax ne sax défense Sénégal bokk na ci ñi ci gëna taxaw mom jamono yi moom di salu Ciss nek ci forme ndax kat buñu sétlo saison ren bile mom dimbalé né Nancy bu baax a baax ndax 27 matchs dal dina ko jouer mom ki di salu Ciss dugal lu ci 5 buts ak 3 passes décisives mom kon mérité na li nga xamanténi moy retour delu ci wat ci li nga xamanténi moy liste bobulé mom itam kayiti xibaar wéral na ne ñu ngi koy xaar ci liste bobulé kenen ki nga xamanténi nak mom moom jamono yi xëy na ñu bëri xaw nañ ci am ak jaaxle mo ki di pap Alioune ndjay mom nga xamanténi ni jamono mu ngi évoluer ci championnat bu nekk fële ci Arabie Saoudite te ñu sétlu woné ki nga xamanténi moy mooy Aliou Cissé dawul faral di woo ñi nga xamante ne dañuy évoluer ci euh, championnat arabe yi ndax seetlu nañu ki nga xamante ni moom la ñuy wax ki nga xamante ni mooy Mbaye Niang wala boog Maxet Diop mi nga xamante ni at yi yëpp mu ngi doon toj championnat yooyu la Aliou Cissé mosul ko convoqué ñu bëri nag jaaxle gannaaw bi nga xamee ne ki nga xamante ni Aliou Cissé jàpp nañu ne dina convoqué ki nga xamante ni mooy Pape Aliou mi nga xamante ni sax moom këlëbam boobu mu nekk dañoo nekk ci jafe-jafe ndax ñoo nekk ndaari ñoo mujj nga xamante ne mooy classement bi foofu la nga xamante ne ci Arabie Saoudite waye nak mu nek championnat bu nga xamanteni ki di Alfred Ndiaye depuis mu dem fa 2018 ba legui ñuy waxe ak yéen ki di Aliou Cissé mosul ko convoquer motax dal ñu bari xawna ñu am jaaxle dal ana lan mo waral ba Aliou Cissé wara mëna convoquer ki nga xamanteni moy mooy Pape Aliou Ndiaye ndax li nu mel dal xamuñ ko won ci mom li moy ñent joueurs yi nga xamanteni jàpp nañu ne dinañu dellu siwaat ci liste bi nga xamanteni ne Cissé dina ko convoquer fi lek ñent fan wala bok ñetti fan ci kanam ci aljuma ji dinañ ci xam lu leer ba tey ci mbirum équipe nationale la des Gambie di équipe nationale bu Gambie ñoom kayiti xibaar wéral nañu ne ñu ngi sàkku jouer match amical seen diggante ak Sénégal gannaaw bi nga xamee ne dañoo qualifié njël benn yoon ci li nga xamante ne mooy Coupe d'Afrique des Nations bi nga xamante ne ñu ngi koy waaj a amal fileeg ay weer ci kanam ñoom nag bëgg nañu benn match amical seen diggante ak Sénégal ngir gën a waajal seen bopp ci li nga xamante ne mooy CAN boobule Gambie nag ñoom bokkuñu ci li nga xamante ne mooy éliminatoire Coupe du monde bi ci li nga xamante ne mooy préliminaire yi waaye nag ñoom nag jàpp nañu ne daal dinañu soxla benn match seen diggante ak gaynde ngir gën a waajal seen bopp donte ne am nañu ñetti match ñu war a jouer ci mois de bi bokk na ci yooyu le ak Kosovo bokk nañ ci équipe yi nga xamante ne Gambie war a ak ñoom ay match amical Sénégal tam war a ñaari match comme ni leen ko xamalee léegi ni ki seen diggante ak Zambie wala boog Cap Vert balaa ñuy àgg daal ci li nga xamante mooy kaan boobule ñoom bëgg nañu jouer benn match amical seen diggante ak suñu gaynde ki nga xamante ni nag moom la ñuy wax Abdoulaye Ndiaye moom nag benn international wala jeune sénégalais la bi nga xamante ni jamono yi mu ngi évolué fële nga xamante ni mooy ci Olympique Lyonnais toll ci 19 moom de moom défenseur central la moom nag dafa daal di am blessure moom nag gannaaw bi nga xamee ne jéewul ay match yu bëri ndax ñetti yoon rek lañ ko gisagu mu jé ak Olympique Lyonnais donte ne ba mu fa demee yàggul jógee ci fi nga xamante mooy Dakar Sacré-Cœur moom Abdoulaye Ndiaye dafa am blessure bi nga xamante ni ko opéré te dina ko jël ñetti weer balaa muy dellu si moo tax kéeti xibaar bi fesal xëy na début sason bi nga xamante ni moom la dëkk dëkkmal ki nga xamante ni mooy Abdoulaye Ndiaye amaana du ci bokk ndax dinañu ko opéré te dina toog lu toll ci ñetti weer balaa muy dellu si waat ak club boobu nga xamante mooy Olympique Lyonnais. ca bitim réew ki nga xamante ne mooy Marc André Ter Stegen moom kayiti xibaar yooyu wéral na ne moom du mën a bokk ci Europe bi maanaam coupe d'Europe bi nga xamante file ay file ki fan ñu daal di koy tàmbali ay semaine nga xamante ne mooy Marc André Ter Stegen di gardien bu ne mooy Ter Stegen a opéré ci li nga xamante ni mooy jeune bi gaañu gaañu boo xamante ni am na ko ci wóom bi moo waral ba dañu ko war a li moo waral ba ñii di Allemagne duñu ko mën a am ci li nga xamante ni mooy coupe bi keneen ki nga xamante ni nag moom jàpp nañu ne file lu toll ci benn at gisuñu ko te mu war a dellu si jeu ci li nga xamante ni mooy Euro boobu mooy Karim Benzema moom la équipe moom daal dinay xam ne ne ki nga xamante ne mooy Deschamps amul choix dina ko woo ci li nga xamante ne mooy liste bi nga xamante ni war na koo fësal kon Karim Benzema mi nga xamante depuis jéewul ak équipe nationale bu France ndax convoqué wuñu ko woon kayiti xibaar fesal na ne Deschamps dina ko daal woo ci liste boobu nga xamante ni war na ko yóbbu ci Europe bi. ki nga xamante ni mooy Jonathan Ikoné mbirum transfert la moom nekk foofu la ci Lille moom kayiti xibaar fesal na ne ñii di Borussia Dortmund pare nañu ngir signé ko pare nañu nag ngir teg ci taabal ji lu toll ci 25 millions d'euros. ki ki nga xamante ni mooy Jonathan Ikoné mi nga xamante ni ngi toll ci 23 ans di évoluer foofu nga ni mooy ca Harry Kane ak Tottenham kayiti xibaar bi fesal na ne ki nga xamante ne mooy seen chairman bi di Daniel Levy nekk président bu Tottenham moom kayiti xibaar fesal na ne mu ngi laaj lu toll ci 150 millions 150 millions de livres sterling moom la ki nga xamante ne mooy Daniel Levy di laaj ci ki nga xamante mooy Harry Kane nag moom nekk attaquant bi nga xamante ne jamono yi kayiti xibaar bi wéral na ni ñetti équipe yi nga xamante ne ñoo gën a mag foofu la ci Angleterre ngi koy xëccoo bokk na ci Manchester United Chelsea Football Club bëgg nañu signé ki nga xamante ne mooy Harry Kane li waral na ba ki nga xamante ne mooy Daniel Levy moom mu ngi laaj lu toll ci 150 millions de livres sterling muy xaalisu Angleterre lii daal mooy li nga xamante ne mooy génne Harry Kane foofule buy sukkandiku ci kii di xibaar nag kii di Harry moom bëggul a génne li nga xamante mooy Angleterre dafa bëgg a des foofule daal di continuer li nga xamante ne mooy carrière am 150 millions mooy njëkk gi nga xamante mooy génne ki nga xamante ne mooy Harry Kane foofule ca Tottenham kayiti xibaar bi mu ngi wéral ba tey ñi nga xamante ñoo di Tottenham pare nañu ngir ut ki nga xamante moo a remplacer mooy ci Tottenham ñaari attaquant yii la teg bët ko ci mal ni Martial Martial nekk foofu nga xamante ni mooy ci Manchester United wala Gabriel Jesus mi nga xamante ni jamono mu ngi foofu la ci Manchester City ki nga xamante ni mooy David Luiz mi nga xamante ni mu ngi foofu la ci Arsenal moom kayiti xibaar bi fesal na bu saison bii jeexee di jeex ak ñii di waa te kayit xibaar bi jàpp na ne amaan na moom du prolongé wala boog Arsenal pare wu ñu ngir ko kon David Luiz bu saison bi jeexee dina daal bàyyi ñi nga xamante ne ñoo di Arsenal. ki nga xamante ne mooy Romelu nekk ancien joueur bu Chelsea football club moom Chelsea football club moo ko bëgg a signé waat xamante ne mooy ci Inter de Milan. lu toll ci 80 millions nag mën na leen ci fekk ndax ñi nga xamante ne ñoo di Inter de Milan 80 millions d'euros la ñuy laaj ci ki nga xamante ni mooy kii di Romelu Lukaku ndax benn saison képp la fa defagum Chelsea football club bëgg ko signé waat. bu ngeen fàttalikoo nag ki nga xamante mooy Romelu Lukaku yàggoon na foofu la lool ci Chelsea waaye nag amul woon foofu benn année bi nga xamante ne daanaka mën nañu wax ne def na fa lu am solo ndax dañu ko doon appelé rek ba gannaaw gi ñu far ko jaay jàpp na nag lii jamono yi ñi nga xamante ñoo ne Chelsea Football ko waat dal di koy delloo foofu li nga xam ne mooy ca Stamford Bridge lu toll ci 80 millions d'euros mën na leen ciy fekk moom la ñuy di waa Inter de Milan di laaj ci jamono yilee ki nga xamante ne mooy Andrea Pirlo ñàkk liggéeyam ak ñii di waa Juventus kayit xibaaru ki nga xamante ne mooy Zinedine Zidane mii ñuy wax ne amaana dina bàyyi Real Madrid filee ci fan ci kanam moom bokk na ci ñi nga xamante ni jàpp nañu ñoo ko war a remplacer wala Simone Inzaghi na ci candidat yi nga xamante ne mën na remplacer ki nga xamante ne mooy André Pirlo wala moom itam jamono jàpp nañu ne bokk na ci candidat yi nga xamante ne mën nañu remplacer ki nga xamante mooy André Pirlo